niñ ko yégué moy naqar bu tiis naqar bu sax bo xamné ne nañu torop ndax kenn yaakaaru ko woon ñuy massaw tamit aussi dañ koy ñëkke suñu bop di massaw tamit aussi ñi nga xamné ño nek suñu suñuy niñ ko yégué nag moy tok ba ben goudi rek ñu wo ñu téléphone wax ñu ni suñu frère yi dañoo démon sortie yalla def euh, ñu lap ci géej gi nek mbour non lañ ko yégué moy metti deugantane parce que xam nga tax muy mooy nit koo xam ne da nekk ak moom bi ngeen nekkee xale ba màggandoog moom ba mu dem ba tollu fii nii suñu borom jël ko si yow naqar rek nga ci mun a dund ak fàttaliku souvenirs yi nga xam ne daan nga ko dund ak moom daan nga ko euh, partage ak moom tamit aussi yooyu tamit day tax day naqar daal mais ñi ngi sant yàlla baax. bi ma koy mujjee gis euh, wala bi ma koy mujjee dégg bi ma koy mujjee dégg euh, par WhatsApp la woon bokkoon. ma envoyé woon fa message moom tamit aussi mu dugg fa envoyé message teg ko daan ne ma ah li nga wax dëgg la ak yooyu boobu laa gëj di am nouvelle ci moom ah, jour boobu la wax. marqué la parce que dafa amoon benn waay boo xam ni dañoo jàppoon moom ci boppam dañoo jàppoon motoom police Pikine mu buggoon ma defal ko intervention biir police Pikine ci laa woo commandant bi commandant bi tamit def ci. jàmm ba mu jot ci motoom jour boobu laa mujjee jokkoo ak moom. marqué trop ak jour bi nga xam ne tamit aussi envoyé na message ci groupe bi tudd li nga xam ne mooy sama tur jour boobu tamit aussi doon na jour boo xam ne damay marqué bañ naa ba vocal bi dama ko génnee def ko ci sama téléphone dina bokk ci loo xam ne daf may marqué ci ñoom ñaar ci ñoom ñett mu doonoon tamit aussi ñu doonoon ay nit yu baax. yow dañ laa jox tuju turu DJ te doo animateur moom dama koy faral di tooñ mu naan ma noo damay ñëw ci yow nga jàngal mag yooyu keneen ki nga xam ne tamit aussi moom mooy euh, njaafu nekk sama rakk ñu bokk benn famille ñu bokk benn famille papaam di bu baax waaw njaafu tamit di nit koo xam ne foo ko fekk day ree rek day ree rek day ree tigoo moom mun naa wax ci moom lu bari muy nekk nit koo xam ne daa am jàmm fu la fekk day kafak ak yow foo yow surtout di la encourager ci liggéey liggéey bi nga xam ne moom ngay liggéey mu doonoon naqar gu metti sax boo xam ne perte nañ ko. yàlla sant yàlla dama naan euh, lu ay nit mu bokk mënuñu koo séddale maanaam tey jii bu dee euh, nen la dañ koy omelette dañ koy euh, mayonnaise bañ ko omelette ñëpp bokk ci communauté chrétien bi noonu la mun naa ne sax euh, Sénégal moo mel noonu parce que tey du ñun communauté chrétien bi rek ñoom ñoo ci nekk bari na ñoo xam ne tey bokkuñu ñoom diine ay musulman yu féete feneen tey ñëw nañ participer ci li nga xam ne moom mooy naqar gi ñu am tey bokk nañ ko ñëpp daal waaw. li ma leen di wax tamit aussi mooy lenn rek euh, ñoom moytu géej bi man tey euh, su doo am na conseil bi may jox sama morom jeunes yi wala samay rak tey buñ demee bay dem li nga xam ne mooy sotti. man ma bëgg naa ñu jël li nga xam ne moom mooy kër boo xam ne am na piscine sax moo gën dem ci géej gi parce que géej amul bànqaas amul bànqaas amul xarit amul doomu ndey donc c'est pas sûr dama bëggoon nag képp kuy jeune nga bàyyi li nga xam ne mooy géej gi focus ci leneen daal. Mhm.